tànk ba laa ilaaha illallah daan na ko laa jël bu leer nañ bu amul benn werante mais Mansour erreur Modou Lo erreur Boy Niang est-ce que song bi kese la wala lan la. fekkee ne booy Niang xeex na noo yoon. Mm-hmm. léegi xeex naa nooy ma rab a ñëw. xeex na de daf maa laaj may ma rab a ñëw. waaw. <laughs> am na ñuy waxoon ni du riposté. Mm-hmm. dëgg la wa déet. Mm-hmm. am na ñuy waxoon ni du taxaw loolu la waxoon. kan moo fi xeex ak Modou xeex bu mel ni gëj naa am ah. gëj naa am xeex na. am na ñu wax ni Boy Niang dafa jël coup. waaw jël na coup. mais Modou Lo jël na coup. waaw Modou dafa gaañu. moo tax taxawul palaato moo tax ma jeex mu génn man maa ngi taxaw dafa gaañu. waaye. moo tax taxawul plateau benn dama loxo wax la man ci télévision laay waxee. Mhm. benn mooy booy ñaa jël na coup mais ñoom ñaar ñëpp ci ne jël nga coup. waaw jël nañu Modou Lo dafa def ouvert bi ñu xeexee xeex bu tar loxo Modou dafa jóg di déclencher ji booy ñaa gis porte ouvert mu dem mais bi muy dem. bi mu ne cas tànku mootloo mm. ñaari bëtu oom yi wàcc na dal na ci suuf. waaw dal na ci suuf. da nga fi ba damay wax réalité yi rek. waaw waaw ñaari bëtu oom yi dal na ci suuf. mais mënatul jóg. mënoon na jóg mu forcé action xam nga lan moo ko tere boo ñaar yëg tànku Modou Lo mooy boo ñëw dama wax naa Moustapha Gueye ci lii Tigre ba. Mm. nee naa la képp ku ñu jël nga aj sa loxo ca kaw ndoddu waaja mën ngaa ñàkk làmb ji ndax dangay ngay may waaj point d'appui pour mu mën laa yanu wala mu jaar sa bokk daan senn la mm-hmm. mais Modou Lo bi xam nga Modou Lo dama la bëgg wax ni la c'est un lutteur gréco-romain ku ko bëgg ak ko bañ. dafa salté bëre. Mhm. bi ko boo ñaan ne cas tànk ba Modou Lo dafa delloo si loxo ba kal boo ñaa ca suuf lal ko ci suuf. Mhm. xam boo ñaa di xëccoog moom suuf si te Modou Lo xam nga néew doole. déedéet ndax dafay yéeg dafay liggéey avant bras. est-ce que fii booy bi jàpp naa doolal waay li may wax mënoo ko génnee. li war a boo ñaa tànkam mënut a jëkkati tànk Modou Lo mooy Modou Lo dafa ràcc tànk ba. dafa ràcc tànk ba par derrière. amul ah, rek. waaw ah, mais naa leen bàyyi ngeen wax ba. waaw yëgali yëgali yëgali ba si ah, ah, yëgali ba si chute bi. mais xoolal combat baa ngi nii. jaruma wan. combat bi 47 fois laa ko seetaan ba mu jeex ak léegi. gis naa lépp. cong bi boo ñaa songu opp ouvert la loxo bu jóg la mu wàcc dem. bi mu demee di jëli tànk ba dafa fekk muud loo rocc loxo ba. lal ko ci suuf mais booy ñaa ah non mais kon mënu maa expliqué. ah non non booy daa am mais dañuy wax. nan laa leen di may te ñu laaj ma man. <laughs> waaw léegi vas-y. non kii neexul beaucoup débat un professionnel ci débat yow da nga wax professionnel ci làmb mais professionnel ci journaliste boo ko doon tuddee sa bopp fi nekk ni science boobu la ñuy wax tey bu ñu nee journaliste ci làmb Fadam ca ñuy dem di wuti ticket journaliste yow ca nga bokk. dëgg la. ndax fi mu nekk ni kenn gën a turaasim ci laaj làmb a ci wax ci làmb. kon da ngay calme nga dal. mais ah, am na foo xam ne dama ko bàyyi. waaw man dama am fu ma bëggoon ma ñëw. Abdou dama lay ñaan benn point rek. yow ak yow ak Mansour bi ngeen moom débat Abdou Ndour bi dafa war a wax. Abdou Ndour dafa war a wax. waaw <laughs> Abdou Ndour àcc na mais damay parewul. waaw parewul chute nga ma wax. chute bi nga ma wax. il faut ñu décentraliser ko. waaw yéen nag bu nga décent yéen defu leen loolu da nga di siif. ah non ban si. léegi nag kaay wax la waaw léegi nag nangu naa. Ah. léegi nangu naa comme ni ko Bekaay waxee. Ah. mais yow amatoo droit jël parole jox ñu la ko. yow amatoo droit jël parole parce que eh, eh. Eh. nan nangu loolu. nan nangu loolu non nan nangu loolu. Abou Ndour non xam nga tey débat bi. ah dégg nga jël de. ma bàyyi ma leen noppi Abou Ndour Vazi. Abou Ndour wax ah saf. man gëw ma nag xaar ba boo ñu am defet bi ñu ñu bëgg a saf. vraiment. quand bii la doon àndal. di ja da tànk bi la doon jiital di bëre nii la doon bëree. léegi nag erreur nag mën na am si ci làmb mooy retard bi moom wax na ko accepté na ko. nangu naa ko retard na ko. nangu naa ko la def naa président Kandji wax na ko léegi. waay oto bu paan cadran xaw ma loolu mooy staff mais quand même booy ñaar bokk na sax te li ñu koy tàggee mooy staff bu baax. Uh-huh. moom quand même loolu. <laughs> dina ko maintenant nag léegi si si li xew si combat bi man li ma gis mooy li ma jàngat su ma juumee rek euh, tonton Mansour. mën na non yow loo wax nekk ci yoon. mën na ma mën na ma. mën na ma kii parce que parce que man li ma gis mooy bi ñu xeexee xam nga Modou Lo sax dafa am problème mu après. waaw bi dafa. dóor laa wax. dóor yi ko moo yëngal moo bi dafa dóor gis nga man man li ma li ma gëm sax mooy bi bi bi Boy Niang bi xam nga xam nga ni Ama ni Modou Lo bëree contre Ama bëreewu ko contre bu Boy Niang xam nga contre Ama doon na ko benn kii xaw a repris mu topp ko mais bii dem na ba kii ko mais dafa dafa taxaw benn place. et puis et puis foo mënul d'accord ak ak ak ak. Fadam ak Fadam mooy. combat bu toll nii staff moo boo ñaa fi ñu toll si xarañ ci làmb nga ne jànguñu Modou Lo kayam loolu erreur boobu kenn kenn mënuñ ko jàng nañ ko. jàng nañ ko xam nañ li Modou Lo di bëri. mais xam nga ni léegi gis nga bi defe bi ko kii dóoree. Modou Lo bi mu dooree bo Boy Niang mhm. man sax li ma jàpp mooy bi bi Boy Niang di sukk ñaari oom yi di dem appui la doon wut boobu kay du door bi da da da da xaw na def laat ba pare li li ki nga genre noojo boobu Modou def si tànk boobu xaw ko xaw ko tourné loolu dafa am lu mu jóoy parce que jàpp waaw mhm. parce que jàpp ba ba nga waroon jàpp doo ko mën a jàpp jàpp mais mais est-ce que jàpp la woon ah est-ce que du woon ndëgg la a yàq. nga a am la mu amoon sa sa sa exploité wu. non moom laa ah? Ah? ba romb ba perte ba perte ba ba romb booy booy ñaar bi ñuy def. fii soo may moom ngeen di méngale. ah soo may ma ñëw. yow Abdou Ndour yow laa déglu ma kenn. kuy bëreeg moom tàgg ren déwén doo ko daan. waaw Birahim wax na ko de. gis nga ñaar yi gis nga Modou Lo soo ko mënul xaar ñaar. Hmm. digli nga bëre moom digli bu ci kaw doo ko daan lu leer la wax. Hmm. ku ko mënul xaar ñaar jël digli bu ci kaw nga bëre moom. yaa xam ah, dëgg ko dëgg bu soog dëgg ko tee. non dama dama déglu ah, dama déglu léegi Père Mansour non man waxuma ma dara non dégg maa dagg ma yaa ngi doon wax dama déglu pour ma soosal dafa nag baal ma ma léegi baal ma ma non man bul ma wax sax xamul sax ah, ma békaay dama ba pare non non eh, dama ko déglu mu ah, non maa ngi ñëw ci moom léeg-léeg ko déglu mu ne moom laa bëggoon a jox ngeen non non non may ma tudd ma Père Mansour non dama ko déglu mu ne mënoo mhm. toog seetaan lu ëpp plus de vingt combats yu Modou Lo ba pare bi ñëw di nekk cuune. moom laa dégg ma waaw. ku daanu cuune nga. déedéet de waxuma la loolu comme kii Fadam Dane. Balla Gaye nan ko Fadam Dane dafa préparé. combat bi mais préparé wul Modou Lo. dafa préparé Modou Lo. Balla Gaye ah, xaar ma ñëw Balla Gaye rek. waaw Balla Gaye naka la daane Modou Lo. xeex ak moom daan jàpp ko daan ko. daf daf ko agressé Modou Lo bi mu daan fan ne. fu mu ne mooy lan. fan la fekk fan la egg Balla Gaye fu mu egg Balla Gaye waaw non Balla Gaye moo ko egg fan fii moo ko moo xeex moom jàpp ko daw jàpp ko dimbali ma waay nga nga fan la la egg ñaari moo ko loo ci kaw téye ca gañooy ca kaw n'est-ce pas Balla fan la nekkoon ci suuf mu suxar ca kaw téye ca Modou Lo Bombardier mais Modou Lo Bombardier fan la Modou Lo daanoo dafa ne ci suuf ba mbër Modou Lo boobu. waaw ah, waaw d'accord naa léegi li nga wax léegi nag. Ah, waaw combat yi munoo seetaan munoo seetaan Modou Lo seetaan yi mu def. nga xam ni Modou Lo li gën a dangereux ci moom <laughs> mooy tànk bi su dee ni yàgg nga seetaan combat Modou xarañ Lo Modou Lo bi Paul Maurice di toll ci digg ndëndëm am doole jug ci juge ci lu simple bi ba mu ne coppet tànk ah, bi meilleur combat meilleur combat Modou Lo ba mu ne coppet tànk bi daf ko tegaat meilleur combat ba ku ko dàq bëri ci làmb danga koo gis APR may ma may eggale tamit xam nga ni tamit neexatul quoi. man est-ce que du ma jóg kon Asba yi mu seetlu. ah ma def ah. Ah. dama ne. da ngeen maa sëxër yéen ñaar damaa yéen leen ko ku ko dàq bëri ci làmb amul. amul waaw loolu da te bi mu ne coppe tànk mu loo. ma ne say làmb kon yow mënu ma mënu ma gëm ne yow yaa ngi. Birame ni ma commencé ngul sax may jeex. non <laughs> non bàyyi leen ko mu yeggali. ayca Fass xam nga. kon bo Boy Niang après nga may Boy Niang mooy li ma la wax Boy Niang ah. champion la. ah loolu ndax koo bëri ci làmb du yomb. <laughs> te combat bi daf ko préparé ni mu ko war a préparé. indi ci doole ju wóor. Ah, waaw mais erreur bi mu def. Euh, mooy lan lay wut ci tànk Modou Lo wutu fa mais am na ñu ne dóor yi mais matti moo tax. am na ñu ne dafa moo tax mu dem jël tànk bi jël tànk mais mais mais dama ne la. <laughs> maa kii waay waaw waaw. Jackson ah. kon. <laughs> Jackson Jackson non non non non Jackson yow. da ngaa bokk ci débat bi. Jackson ñëw après ñu eggale boo ñaa jël ko coup tax muy jël kii quoi. muy jël tànk ba boo ñaa man xeex dafa ma bett. boo ñaa rek bu garaaw. Mhm. day dóor di xool loolu yomul si mbër. Mhm. bu xooloon du mën def esquive yi def esquive mais mu loolu nee ko xeexal tey ma xeexeexu làmb su ma xeexeexu mbedd am kuy dóor wàcc di jóg di dóor di xeex di bëree loolu yombul si bëree yombul de heure mu def rek mooy la lay wut si tànk mu loo ah waaw benn heure boobu laa xam ne man nangu naa mais làmb day toll foo xamante ni bu kuy Dakar naasee da réer. mais xeex bu baax la mais Boña xeex bu baax man dama Boña tey laa gëm ni Boña ma xeex. durant tout le combat Jackson. et eh, non non waaye tax daal déglu leen ah, durant tout le combat nag Jackson. Hmm. Boña mi ngi si biir combat. non mi ngi si biir combat bi déggu la man. combat Modou Lo Boña eh waay Babacar doo bàyyi booy bi mu wax Jackson moo expliqué. combat si laa xam ne Boy dafa mën a xeex. ah non ci combat bi. lu bëri Boy wane na ko ci. waaye ci xeex bi. dëgg yàlla moom xeex na xeex bu jaar yoon. Ah. bu yombul bu yombul la bu jafe. et puis te touché na Modou Lo. touché bu baax. surtout croche bu Modou Lo. waaw croche boobu waaw bu ko expliqué woon si suuf la jëm da ngay far. mais man xeex morom. mais laaw la moo tax. non day da nga bi tànk bi. waaw waru foon dugg waru foon man dama ne dafa waroon commencé jàpp ba ci dugg ba ci ndigg la la war a. laa gisoon pour man pour man booy ñaa bu demee bay dugg. ndigg la lay am. Ah. ndigg la naa am fi mu suuf moom la même boo ñaa doon tànk teg ko fi du ko daan. parce loolu forum na. ba pare booy ñaa booy ñaar tamit mais gauche bi daf koy handicapé de Modou Lo day xeex gauche ak droite mais booy ñaar boo xoolee bagaay. Ah, droite bi rek kay wax ah mën naa ñëw ah. dafa am lu Baye Balla wax léegi dafa am un grand champion. Mhm. bu nekk ci làmb. Mhm. ba ma ne Modou booy ñaa li ko daaneel ma ne ko ah. mu ne ma ñaari loxo la bëree booy ñaa benn. benn loxo lay bëree. moo tax mais drogue bi kenn xamloo ko woon. ndaanaan ndaanaan bu mag a mag a mag. yéen ñaar ah, ah, ah, ñëpp. yéen ñaar ñëpp kenn waxu ci woon loolu. ah dama déglu non wax de ah dama waxu leen de. naa bàyyi mu set. man man maa ngi ñibbi quoi. Eh, ah man ñibbi. bàyyi Balla parce que kii non kii dama doon wax ci li Boy Balla laa doon yeggale. parce que li Boy Balla man ndaanaan na ma ko wax. moo ma ni même bëgg

élément combat bi nga ñu indilaat comme ça ñu mën a dugal. bu continuer nii Modou Lo ak Boy ñu ngi léewtoo